nekk kàddu yu am solo xam naa ñu dikk tuuti ak euh, li nga xam ne moom mujjee xew ci jamono ji euh, gis nañ ay yëngu-yëngu yoo xam ne jotoon naa am ci réew mi yéen ngeen di euh, ñu am solo ci réew mi rawatina ci wàllu jàmm ban kàddu nga yëkkati ko di ko jëmale ci googu rek fànn rawatina ak ndaw ñi. waaw xama nga kasu rajo bi fay na lépp comme kasu rajo bi fay na lépp nag nañu nañu waaw na na na fi doxe nooy rek. di nooy ba fa waaw <laughs> tey daal sëñ Fallou aaye mhm. waaw nañu wax ndaw ñi euh, ndaw ñi pour ñu gën a mën a liggéeyaat euh, réew mi ndax foofu la ñu toll waaw ndaw yi ñu góorgóorlu rek ndaw yi moom ala kulli àll réew mi ñoo koy mujjee nañu xam loolu rek nañu xam ne réew mi ñoo koy mujjee euh, ndono nag doo ko yàq du dëgg nit ku baax du yàq ndonoom wërsëg a nga yem ci di ndaw nañu xam loolu waaw naa ngir jeexal gis nañ ne réseaux sociaux yi bëri na ay jafe-jafe yoo xam ne mi ngi koy andil euh, ñi nga xam ne ràññee nañ leen lool euh, lan nga leen di wax euh, ñi nga xam ne ñoo ci nekk ak naka lañ ci war a taxawee. waa ñu bañ a ñu bañ a ñu bañ a def yëf yi xëccoo rek xam nga lu ñuy wax xool asamaan jarul xëccoo ah, nañu jéem a concurrence ci qualité ci lu baax. lu baax bu dee rafet na baax na rek amul problème mais bu safaanoo rek tu fais euh, loo xamante ni boo duggee ca la la ñu titré sax doo fa fekk lañ titré na yoo xam ne gàcc la ah, te yàlla dañ ko ne ndax jullit dina sàcc yonent bi astaghfirullah ndax jullit mun na dina dina sàcc mu ne mën na ne ndax jullit mën na safaanoo laaj ko ci yu bëree bëri mën a mën naa ne waaye bañ ko nee ndax jullit dina fen dafa ne laa déedéet kon titre loo xamante ni da nga ko def pour yàq nit titre loo xamante ni nit day yàkkamti kilika ci pour xool te bu xoolee li nga titre ak la mu fay fekk du benn loolu loolu dafa yow mi koy def sax boo dee nit yaa war a njëkk rus ndax sa maam dafa ma doon wax yow miy wax lu dul dëgg balaa wax jee àgg sax da rus ci sa bopp boo ko waxee boo ko waxul kon nañu delloo siwaat xel yi rek te xam ne euh, internet li ci ne bëri na li ci ne te mën a jëriñ bëri na euh, soxlawul di wax la dul dëgg pour pour pour gagner vraiment projet yi ak fan lañ la mën a xaar. Euh, waaw man aar aar je suis artiste je suis te sama mission mooy fexe ba aar rafet fexe ba aar taaru fexe ba kuy artiste rek foo mënti ne ngay ngay dundee aar man loolu mooy sama mission. waaw waaw déggoo li ma wax. àdduna dara matewul dama ne sama mission mooy fexe ba kuy artiste rek di dund ci aar ah, <laughs> ñi ngi ci waaw ñoom déggul ma mission bi mooy man je un artiste wax naa la ko je suis né lu nit di def ci aar jàng naa ko ba mokkal ko làmbantuma artiste déedéet bu baax dama ci juddu njëkk waaye yamuma ca ca ca ca deret ba ak askan wa dama ko jàng ba mën ko yaa ngi dégg léegi nag dama gëm ni aar war na teral jaam bi artiste bi donc ñu ngi ciy def lu ñu mën pour que artistes yi nga xam ne euh, jàngoro bi ma dalee leen dal mooy bëgg aar aar teral leen <laughs> ba ñu toog ci aar duñ dem ci leneen lu dul aar sant yàlla ak julli ci rasulillahi sant yàlla bu baax ba mu ñu boolee ci ñuy fekkee kasu rajab bii 2021 am na ñu ko fekkoon daaw ren fekku leen fi kon ñun bu ñu yàlla boolee ci ñu ko fekkee luñ ko sant doyul mu ne 2020 bi metti na yàlla dimbali ba nga fekkee 2021 rek loo sant doyul kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ñu ngi sant yàlla ba di ko feccal tubaarkàlla sant yàlla ci ne ci dëkku xaadim rasul bu mag bi nga xamante ni ba mu koy sanc dara taxul lu dul jàmm ah, moom mission yonent bi rek la àggali mooy yeewi jaam ñi ah kon ñu ngi sant yàlla bu baax ba ñu bokkee ci ñi néew ñi nga xamante ni ñëw nañu ak yéene ñëw màggal bésu sëñ fàll bi ah, doy nañu sëkk teraanga ñu ngi sant yàlla bu baax a baax jërëjëf